laqin lisaani waxlulan minhu loqat wajcalhu zaakiran wa shakiran abad wajcal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi bu baax te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñëw rek di ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo defee ci fàttalente ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu nekk ak yéen ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwirus Sudur te ñu yemoon ci suñu tomb bu mujj ñu yemoon ci bunt bi nga xam ne wala dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu def jagleel ko li nga xam ne moo di cëri doomu aadama ci li nga xam ne moom li mu ci war a def ci ak topp yàlla ak li mu ci war a moytandiku ci ak mooy suñu borom bi subhaanahu wa la suñu bindub tey nag mooy bunt bi nga xam ne mooy buntum ñetteel ci téere bi te mooy bunt bi nga xam ne fi la téere bi yem mu ne albaabu saalisu lii moo di buntub ñetteel bi fi manfaati alxabibi ci njariñi soppe ba di yonente bi salallahu alayhi wa sallam al amini kadi kañu wóolu woo fi madarati al adwi ak ci lori noon ba di eh, saytaane di iblis allazi ma nga xam ne yaminu dana wax lu juyoo ak dëgg sëriñ bi radiyallahu anhu nee bunt bi daf koo def muy bunt boo xam ne daf ñu ci leeral njariñ yi nga xam ne mooy njariñ yi ñu Euh, mën a jëlee ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak njariñ yi nga xam ne moom la ñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam amal ci andi gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala andi lislaam jaarale ko ci ak ab loxoom ak euh, li nga xam ne moom la ñu mën a jëriñoo lépp lépp ci woote bi yonente bi salallahu alayhi wa waaye euh, bu ko defee daf koy jàkkaar lool ak li nga xam ne mooy lor yi nga xam ne moom la ñu noon noonub lislaam bi andil te moo di iblis ak euh, sànq gi nga xam ne moom la bëgg sànq doomu aadama ak dëddale gi nga xam ne moom la bëgg a dëddale doomu aadama ak ndigal yi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa jox waaye ak topp gi nga xam ne moom la war a topp suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne wa min manaafi'i rasulillahi bokk na ci njariñi yonentab yàlla bi alayhi yal na nekk ci moom sarmadan ba faw salaamullahi euh, sëlmali yàlla baada salaatihi ginnaaw ay julleem intifaahu ak jariñam moom yonente bi sallallahu maa xas dintifaan jubloo jariñ xayrihi kudut moom wa xamaa te mu notoñu lépp loo xam ne moo di ab noon ne na bokk na ci njariñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te musal ko yal na ko suñu borom subhanahu wa taala dolli salaatu ak salaamu na ci ay njariñam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jariñu gi nga xam ne jariñu na ko moom yonente bi sallallahu alayhi ci li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa woon waaye woote bi nga xam ne moom la ko suñu borom bi subhanahu wa taala woote la woon jariñu gi nga xam ne jariñu na ci moom yonente bi ak jublu gi nga xam ne moom la jublu képp koo xam ne euh, woote boobu dab na la nga jariñu woote booba loolu njariñ la loo xam ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moonu ko indil te ci woote boobu nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala dénk doon ko ko wooteloo ci lañ koy eh, jariñoo waaye di ko jariñoo ci moom yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon yonente bi salallahu sallam ñu xam ne lépp li doonan yitteem ci euh, euh, yitteem rek mooy moom bu jariñoo ba pare képp koo xam ne ab jullit nga te topp li nga xam ne moom la woote moom yonente bi salallahu sallam nga jariñu comme noonu moom li nga xam ne noonu la jariñoo moom yonente bi salallahu sallam mu ne wa min madarati aduwillaahi bokk na ci lori noonu yàlla bi alayhi yàlla na nekk ci moom laanatum euh, mbugal aku akum rëbb minal ilaahi bu tukkee ci suñu borom bi subhaanahu wa taala idbaaruhu ak dummóoyoom maanaam ak dëddoom anil jinaani warif ajjana sarmadan ba faw linaarihi jëm ca sawaraam sa moom iblis allati ba nga xam ne tuddiimu dana saxal alkamada njàqare mu ne ginnaaw njariñ yooyu nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi amee ba pare euh, moom iblis moom mi nga xam ne moo di iblis di noonu suñu borom bi subhanahu wa taala bokk na ci lor yi nga xam ne moom la amee moom iblis yàlla na suñu borom subhanahu wa rëbb ko mooy dummóoyu bi nga xam ne moom la dummóoyu àjjana waaye euh, bëggit képp koo xam ne gëm nga yàlla mu fexey ba dummóoyu loola ajjana comme ni nga xam ne noonu la ko dummóoyoo moom iblis dummóoyu àjjana gi nag ki li muy mooy li nga xam ne mooy digal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala joxe ñëpp war koo topp jullit yi nga xam ne ñoo gëm yàlla gëm woote bi yonente bi doon woote war koo topp mu fexey ba dox diggante ak topp gi nga xam ne moom lañ waroon a topp suñu borom waaye fexey ba dox seen diggante ak jaamu yàlla waaye fexey ba dox seen diggante ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon moom iblis noonu la def nga xam ne li nga xam ne mooy ndigal yàlla yi du ci jëfe dara waaye jëfewu ko moom ci boppam waaye day bëgg ñi nga xam ne ñooy jëfe ndigal yàlla yooyu sax mu gàllankoor leen ba fexey bañ topp aw yoonam bañ a jëfee li nga xam ne moo di ah, ah, ndigali suñu borom bi subhanahu wa taala te loolu bu ñu xoolee mooy li nga xam ne moom iblis moom la defan bi suñu borom bi subhanahu wa taala bindee suñu euh, maam Adama ak Hawa wàcce leen ca aljana moom iblis mooy ki nga xam ne euh, moo sabab euh, suñu borom bi subhanahu wa taala jële leen foofee moom suñu maam Adama ak Hawa wàcce leen ci kaw suuf ngir lan ngir tarxiis wala Euh, njuumte loo xam ne euh, def nañ ko te iblis mooy ki nga xam ne moom moo leen ko teg moom iblis kon loolu day wone rek ne lor gi nga xam ne ak gàllankoor gi nga xam ne moom la iblis yàgga lor doomu aadama ak yàgg ko ko gàllankoor loolu lu yàgg-yàgg la te ma nga tàmbalee ca suñu maam adama alayhi salaam moo tax alquran di wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li aadam fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kaana min alkafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fa takuna min adh-dhalimina fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi nee na yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu bindee suñu maam Adama alayhi salaam ba pare daf ko andi euh, wax malaaka yépp ne leen sujjootal leen suñu maam aadama alayhi salaam bi malaaka yépp sujjootee iblis moom lànk ne du sujjoot euh, iblis bañ moom ne du sujjoot euh, bi nga xamee ne euh, bañ na moom iblis suñu borom subhanahu wa taala bàyyi yóbbuwaat suñu maam aadama ci àjjana ji nga xam ne moom fara nekkoon mook suñu maam xawaa daal di leen fay bàyyi ngir lan ngir ñu continuer dund ba nga xam ne moom lañu fa doon dund waaye bi leen suñu borom subhaana wa taala yóbboo daf leen a moytandikuloo am garab goo xam ne dafa ne mu moytandikuloo leen ngir ñu laal garab googa di ca jëfandiku waaye iblis ci noonu gi nga xam ne moom la yàgg noonu doomu aadama ak bañ gi nga xam ne moom la yàgg bañ doomu aadama mu fexey ba euh, euh, loo suñu maam aadama euh, ak suñu maam xawaa fexe ba lekkaloo leen ci garab googu nga xam ne moom la leen euh, suñu borom bi subhaanahu wa doon aay kon nga gis ne moom noonu gi nga xam ne moom la noonu doomu aadama lu yàgg la te loo xam ne euh, lu lu sax la ci moom iblis euh, nga gis ne bi mu defee loolu ba pare suñu borom bi subhaanahu wa taala laaj na ko ne ko yow iblis lan moo tax ma sujjóot loola nga lànk ndigal li nga xam ne moom laa joxe nga lànk bañ koo jëfe Euh, mu ne ko dang ma bind euh, ci sawara bind ko ci ban te man mi nga bind ci sawara jàpp naa man maa ko gën kon iblis moom dafa jàpp ne bind gi ko suñu borom bi subhanahu wa taala bind ci sawara moom moo tax mu war a gën doomu aadama bi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf koo bind ci euh, li nga xam ne moo di ban moom la suñu borom subhaanahu wa taala di wax ne xaala ma manaaka allah tasjuda is amartuka xaala ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin euh, loolu la iblis tontu suñu borom subhaanahu wa taala kon nga gis ne moom ak noonoom doomu aadama dafa yàgg lool waaye bañ gi nga xam ne moom la bañ doomu aadama ak gàllankoor gi nga xam ne moom lay gàllankoor doomu aadama ngir mu bañ a wéye ndigali suñu borom yi waaye ngir mu ànd ak moom ci yoon wa nga xam ne mooy yoon wu bon wa nga xam ne ke la soobu moom iblis loolu dafa doon lu ko yitteel loo xam ne moo doon am xëyam waaye mooy doon am ngontam sëriñ bi di wax ne wa min manafi'i nabiyil muntaha bokk na ci njariñi yonentab suñu borom bi subhanahu ba mu tànn salla yal na ko dolli xiiwal alayhi ci moom rabbuhu boroomam kamantaxaa na mu ko tam tànne nasihatun mooy ak laabiire minhu bu tukkee ci moom yonente bi sallallahu alayhi wa laa goo xam ne jublu na liman ñeel ka nga xam ne amoon na gëm na bi rabbihi ci boroomam fii kulli zaman ci jëpp jamono dana bokk na ci njariñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, yonente bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa moom moo ko xool tànnal ko boppam ci biir mbindeef yi dana bokk na ci ay njariñam mooy euh, laabire gi nga xam ne moom lay laabire képp koo xam ne gëm nga ko euh, wala képp koo xam ne gëm nga suñu borom subhanahu wa taala tey topp wooteem bi laabire gim lay laabire bokk na ci njariñ yi nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi kon euh, mu mel ni li nga xam ne moom la moo mooy xadis ba nga xam ne moom la xam ne ak diinu an nasihatu diine laabirante la kon moom yonent bi sallallahu alayhi moo ci jiitu ñëpp te laabirante googu Euh, ci jamono yëpp la ko daan def waaye daf ko daan def ak euh, saxaaba yi ñu ci euh, bëree bëree bëri ci laabirante yoo xam ne léeg-léeg mu doon boo xam ne daf koy jubale ci nit waaye ñu bëree ñëpp dañ ci mën a jariñu waaye léeg-léeg mu def ko loo xam ne li amati naas lay doon maanaam nit ñëpp ñoo koy bokk nit ñëpp ñoo ciy bokk jariñu nga xam ne lépp loo xam ne mooy fegal doomu aadama euh, euh, mm, euh, merom suñu boroom moom yonente bi saa sallam dafa ñu ko daan laabire waaye lépp loo xam ne moo daan tax nit ki mën a am ngërëmul suñu boroom bi subhaanahu wa moom yonente bi saa sallam daf ñu ko daan daf ñu ko daan laabire waaye daf ñu ko daan digal kon bokk na ci njariñam yi mooy euh, euh, bëgg gi nga xam ne moom yonente bi sallallahu alayhi bëggoon na ko euh, doomu aadama yëpp jariñu jullit ñëpp jariñu ñi nga xam ne ñoo suñu borom subhanahu ñëpp jariñu ñi nga xam ne ñoo ko topp ñëpp jariñu mooy lan mooy laabire goo xam ne dëkke woon na ko ak ñoom di leen ko laabire ci lan ci li nga xam ne mooy yéwénal seen mbirum diine waaye li nga xam ne mooy moo leen di déggale ak seen diggante ak seen boroom ci lan ci ngërëm loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala leen ko defal waaye ci loo xam ne moo leen di euh, aar ci lépp loo xam ne moo di ak mooy waaye lépp loo xam ne mooy lu neexut suñu borom bi subhanahu wa taala nga xam ne xadis yu bëree bëree bëri daanaka ci euh, laabire googu rek la ko euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan def nga xam ne saxaaba yi léeg-léeg kenn daan ñëw ci moom ne ko dénk ma dara mu ne ko gëmal waxal ne gëm naa yàlla te nga jub euh, su ko defee euh, ñu mel noonu day mel ni yonent bi sallallahu alayhi day xam seen xaala fi mu toll su ko defee ca la seen xaala toll rek ci lu mel noonu ca leen di loola la leen di digal waaye loola leen di laabire ngir ñu taxoo loola ngir mën a mën mën a dem kon nga gis ne laabire yu mel noonu bari na lool ci xadis yi waaye eh, ngir bañ a rek eh, ci eh, yooyu la ñuy yem mu ne wamin madarati aduwina bokk na ci lor yi nga xam ne moom lañu suñu noon bi ëmbal muy iblis di seytaane allahin mañ rëbb fa suñu borom subhanahu wa taala alayhi na nekk ci moom laanatun am rëbb minal baaqi mu tukkee ca suñu borom subhanahu wa taala almuin may aji dimbali képp ku koy sàkku ndimbal adaawatun ak noonoo min hu gu tukkee ci moom te wajjahat jojjublu na ilaa man jëm ci képp ka nga xam ne yatlubu dana sàkku allah yàlla allazi yi ma nga xam ne yonti dana maye wala dana joxe al ilaa ay xéewal dana bokk na ci lor yi nga xam ne moom la euh, euh, iblis ak seytaane di lor doomu aadama yi euh, mooy bëgg gi nga xam ne moom iblis bëgg na ko def nit ñi noonoo suñu borom subhanahu wa waaye bëgg gi nga xam ne moom la bëgg képp koo xam ne euh, gën nga suñu borom subhanahu wa mu fexey ba euh, euh, du mooyu la la du mooyu la li nga xam ne mooy ndigale suñu borom subhanahu wa taala waaye fexeey ba def la ab noon sa diggante ak suñu borom subhanahu wa kon moom dafa noonu suñu borom subhanahu wa taala ba pare euh, di mooy suñu borom subhanahu wa taala di ñàkk jëfe ay ndigalam waaye nag dafa bëgg noonu mu mel daf cee bëgg a yóbbaale képp koo xam ne euh, da nga gëm suñu borom subhanahu waaye képp koo xam ne da gëm woote bi yonente bi sallallahu alayhi waaye képp koo xam ne danga gëm li nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam woote te te nga ciy jariñu mu bëgg a fexe ba njariñ loolu doon loo xam ne moom iblis dana ko gàllankoor moo tax sëriñ bi ne wa min madarrati aduwin allain alayhi laanatun min albaaxi almuin adawatun minhu tawajjahat ila man yatlubu llah allazi yuti ila kon bokk na ci ay lorom moom iblis mooy bëgg gi mu bëgg képp koo xam ne da nga jublu suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo di mooy maye ay xéewal képp koo xam ne jublu nga ko di ko jaamu comme ni nga xam ne noonu la ware mu noonu la comme ni nga xam ne noonu la noonoo suñu borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne adaawatun minhu ak noonu goo xam ne day tukkee ci moom iblis tawajjahat noonu goo xam ne day jublu ilaa man jëm ci képp koo xam ne yatlubu da ngay sàkku allaha yàlla allazi ma xam ne yooti day joxe al ilaa ay xéewal kon moom iblis képp koo xam ne leer na ko ni kii jaamu yàlla la bu dëggal day topp yonante bi sa alayhi wasallam ci li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala yónni euh, di jaamu yàlla comme ni mu ko diglee di moytandiku li nga xam ne mooy tere yi suñu borom subhanahu wa taala euh, tere képp koo xam ne iblis xam na ne loolu mooy sa yitte te ci loolu ngay dox iblis moom am noonu la lay def ngir lan ngir bëgg dox sa diggante ak euh, jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala googu waaye bëgg a dox sa diggante ak euh, euh, topp ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di digle waaye ngir bëgg a dox njariñ li nga xam ne moom la moom la ñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam andil ñu war koo jariñoo mu bëgg a dox suñu diggante ak loolu kon moom loolu rek moo di yitteem moom iblis kon yal nañu yàlla musal ci moom kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di euh, dog ngant di wàcc foofu kàddu gi di wax ni in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi was samaawaati